mën a doon rek su fekkee yaa ngi du ko dox jëm ci loo xam ne lépp day taxawal lislaam faaw nga dajale sa mbooloo téye leen ndax mooy li nga xam ne mooy leen di sàmm téye gi nag mooy teew yu su liggéeyal lislaam lépp lislaam santaane ñu ne ca ak dimbal leen ci seen biir te yàlla tax kenn ku nekk la nga mënal sa morom bu ci xaar ñu di la ko wax mooy mooy mooy yëllay mbooloo sëriñ Cheikh loolu ko taxoon jóg loo xam ne nii moom da koo defoon pour boppam. foofu nag la ñuy xool loolu bu fekkee am na ci ñoo xam ni xëy na des na des na dégg ga des na loolu rek mooy mooy mooy mooy bu gàtt gàtt la. loolu noonu dong la demee déglu na li fi nekkoon muy lislaam li nga xam ne sëñ Tuubaa tegoon na ci tànkam. mbooloo mi takku taxaw liggéey fas yéene liggéey ne ca. nekk ci nit ñi buy dox ku ne nag sama mbooloo yaa nas ngir loolu foofu nga leen mooy bunt bi nga xam ne nga leen mën a jaar bu liggéey loolu léegi nag euh, li ci nekk ba des nag mooy nit ki nag warul jiitoo faw ay jafe-jafe